wajalilaahi maskani Tuubaa baat misras mi abijaayi xayri ma nabaat lu mel ni lii ngeen di dox muy Tuubaa ca kanam ñu bëgg ci nag lool ci li ngeen di dox nii yéemu ci itam man yéem dama cee yéemu ci Tuubaa ci kanam bi bi ngeen àggee nag ci Euh, kër gu ne ngeen bëgg boroom ba def ab làmp ci buntu këram boobu xalaat moom dama bi ko déggee moom ci laa gën a yéemoon ak ci li ngeen leen dox lépp di ñaan daal fi ngeen bëgg mu yegg mu yegg fa te dana fa yegg ndax ki ngeen di liggéeyal a tax dëkk boo xam ne gis ngeen bu fi dara xewee lu mel ni màggal yi rawatina nag màggal ku nga xam ne nga xam ne bu ñëwee avion yi sax am ci place bu fi jëm si day jafe si ñuy ci dëkk yi foo foo bëgg saa boo bëgg ñu ne may fii ñaari fan ñetti fan nga xam naa la xëy na dana am place bi ñu wàññi ko saxaar yi fees doom foo doom oto yi ñoom sareet yi fu ñu jóge am ñoo xam seen tànk lañ yor ñii di fétal ñii di jaar ci yoon yi ñii fexe ba ñëw rek lépp baaxu Sëñ Tuubaa rek la ñuy si ngir yàlla gërëm leen euh, dëkk bu mel noonu léegi ku fi dëkk euh, war nga foo toll di am xalaat bu koy bu koy bu yokk ak bu koy bu koy gën a nga xam ne euh, sëñ Mourou lim li ma wax nett naa leen ko léegi nee woon na euh, Makka euh, ñu daan lim ñu gën a ñàkk ci la ñuy bokk ñu dema dema dema bu ñuy lim ñi gën a woomal ñoom ci la ñuy bokk sëñ sëñ Mourou wax ne ku baax ka tëdd ci seen suuf rekk tax mu ne nag kon nuyu itam bu yóbbu nuy séentu ne loolu dal waa Màkka dana nu dal te ku baax ki tëdd suñ suuf sekk ko yoral euh, sëñ bi nag ne euh, ñu daal di xam ne kon nag koo xam ne kii euh, yàlla defal na la lu day noonu fa nga tëdd ña fa ne war nañ ko xam bu baax te xam naa ni Tuubaa de baax ak baaxuk Seex Amadou Bamba fi ne ku ko ci ku ci xam lu fi dox ni nga fi war a doxee yàlla na fan gudd rek ndax wóor na ma ne bu saw fan guddee sëg mujj bu tedd rek lay doon te itam da nga am tuyaaba yoo xam ne boo la yéeg sa borom da bég loolu moom xam naa ko oh, kon nag loolu rek laa ci loolu laa ci wax amul leneen ñoo am na foofu li ma leen waxoon léegi fi may war a yem rek laa yem. Mm-hmm. lu wax ci woyee foye fit noonu laa koy bàyyi rek waaye lu ma ci jéem a xóotal li li li ñàngal ci waa <laughs> ci kanam rek waaw ma ne nag léegi mm-hmm. eh, yéen eh, seen tur yi dafa am solo. Mm-hmm. tur doy waar la bu ci kanam tur wu doy waar la bu bu ngeen demee ba ba kii nga ah, lii dama ko war a def ngeen wax ma ko waaw ci kanam moom képp ku bëgg a ci kanam rek ah waaw eh, waaw lamp yi dugal naa ci téeméeri ngir leer gi ngi ngeen bëgg a leeral ci lay bokk. ci leer gi lay dund ci leer gi lay dund ci leer gi lay dund kon war naa ci def dara euh, bu ñu demee itam nag ba ngeen ba ngeen ba ngeen gis ne war na def nag lim lu ngeen ma sas lu ngeen ma lu ngeen ma sas rek naa ko sasoo. wajalilaayi maskani xayri ma nabaat